toog ak Serigne Saliou mu met jamono yi dafa metti trop bay dugg si ay way ku ne xam nga ni dangay am problème ak sa famille metti trop waaye boobu li ma bëggoon rek mooy bëgg naa nekk nit bëgg naa nekk kenn mu toog guddi alxamis mënu maa nelaw mooy mille cinq ma dugg ko al azar dem Touba ba may dem Touba yuruma dërëm 1500 rek laa yor maanaam bu ma bëggee ndox ci chauffeur damay dox ba ci bi na ko doomu may ma naan ma naan ma ci jumaa dugg kër sëñ kër sëñ maa ngi fa yegg si presque ay 11 heures que horaire fajar bi laa jël ba ma demee toog xiif naa trop nag ma demee toog ba xéewal yi ñëw ñu jox ndongo moom këram moom boo ñëwee xale yi ñëw ñu ko lekk. waaw xale yi ñëw ñu ko lekk ba lekk ba suur ba raxasu la desité xale yi dañ desal moom ngay lekk ngir war ma bu joxoon ay xale ñu gis ñu jox leen ay fruits xale yi bu na mayul fruit doo lekk sa fruit ya wala boo ci lekk di ngeen xaar ba xale yi lekk ba génn ba dem yaa des ñu soog ko séddale xale lekkee pare ma lekk ba suuf toog il faisait il faisait ay vers 17 heures bi ni ñu duggee ma dugg bi ñu duggee nag ma toog rek ci ginnaaw naan ko Mbàkke yàlla na fi yàgg naa amee yàlla na nga fi yàgg man di nit ñi di wax yëpp di ziar di génn dem rek fi ma toog laa toog naan ko Mbàkke yàlla na fi yàgg mu ne ma yow yàlla nga fi yàgg Mbàkke yàlla fi yàgg mu yow yàlla na fi yàgg sëñ bi xiin ñi xel kafe gi muy jox jox jox jox jox man maa ngi toog ci ginnaaw mu jël benn naan siggi xool ma ma toog fële yëkkati jox ma mar bii ñu ngi demee nag ba nga xam ne nii fa nekk bëreetul mu ñëw si moom na ko fi yàgg mu muuñ na ma yow it nga fi yàgg man ko mbàkk yàlla nga fi yàgg muuñ na ma yàlla nga fi yàgg ay mbàkk yàlla fi yàgg mu muuñ na ma yow it yàlla nga fi ah, ñëw rek nga ñaanal nekk si mbir yooyu way damaa bëgg a way ah, bëgg nga ñaanal ma waaye nag lii sama yitte mooy damaa bëgg Tuubaa gi damaa bëgg sax àjjuma du fi jullee si si gikoolam hmm? ko daal léegi nag li ma bëggoon nag Mbàkke nga ñaan ma maam ay oto maam oto du fi julli di ma a di julli si hmm. Hmm. waaye mbaa mbaa bu amee ko def man ko Mbàkke dinaa ko def sax si jàmm yàlla di liggéeyal Sëriñ Tuubaa da ko tane nañ ko dimbali damay ma ne lu tax boo joué soirée nga jox sa at joxe sa xaalis bi doom dara man sëriñ bi ma ko sant ndigal bi ñu demee ma jot di dem bi ma demee bay génn bunt bi ñu wooluwaat ma ma ñëw sëñ bi jox ma benn enveloppe enveloppe baa ngi nekkoon après ma tijji ko mu nekk cent soixante quinze mille et quelque te yoroon woon <laughs> ma génn dem garage di jëli oto benn kar-kar bu ñuul ku taxaw samay tànk man ko sëñ bi foo jëm Dakar mën na ma Dakar laa jëm man ko fa laa jëm moom mu yéegal ma yéeg ñu dem ba si station man ko sëñ bi ñaata la mun dama laa yóbbu dama laa defal addiya Serigne Saliou man ko pourtant si Serigne Saliou laa jógee mu ma ah man it de xool sëñ bi muy wane boppam <laughs> ma dugg si bi bi ñëwee si station man ko waa léegi addiya bii ma Serigne Saliou jox damaa bëggoon nga jël ma jox la si nga dolli si essence maam ñu bokk yoon bi nga jëmmi Serigne Saliou ma yi dix mille jox ko mu ne du ma ko sol essence waa gi sol plein jël dix mille def si poosam waa ji mooma indi ba sama buntu kër boobu la samay mbir tàkkee bi ñu demee ba ay ñu teg si ay weer sëñ bi làqu te aw oto ma jékki-jékki nit woo ma te kooku daf maa ne bul wax mukk sama tur si àdduna may ma oto Opel Tigra deux portes bu bees tàq at ma sa topp ñu mayaat ma oto maanaam li man a mën a li ma la mën a junj mooy man musuma taxaw si parking oto gis nga oto yi ma yor musuma taxaw si parking oto génn dix mille la jaay leen ma oto